mbokki Sénégal mbokki euh, Afrique mbokki waa diaspora bi mbokki wa àdduna ngi wërngal këpp ngi ku nekk ci turam ak santam sant yàlla suñu borom fi nga xamante ni moom mooy Cambérène bu Seydina Issa Ruhulahi voilà mbokki ngi dalal ki nga xamante ni mooy docteur Rossneh Ludovic Alla Soutien nekk consultant juridique nekk constitutionnaliste voilà ñëw ci fi nga xamante ni ku ne xam na jaar-jaaram ci débat yi nga xamante ni politique nga xamante ni mooy émission politique fi nga xamante ni mooy Sam TV gaynde l'actualité salaamaaleykum docteur Rousner. maaleykum salaam Elmat maa ngi leen di remercier ci invitation bi. Mhm. di am mbégte ci ñëw tey ci Cambérène. Mhm. di leen ci liggéey bi ndax li ngeen def mhm. jublu leen ci dara lu dul nit ñi yeew fii ci Cambérène ci Sénégal ak ci àdduna. jërëjëve euh, docteur Rousner Ludovic Alla Soutin dañuy dugg ci actualité politique. internationale nan nga gisee ci actualité politique. Euh, ci wàllu adu bi li fi ne mooy corona boo xam ne euh, dafa taw dem nit yaa ngi ciy wax ñu ngi ciy jéem waaye est-ce que ñi ci ne ñi ngi wax ñi ñi dëgg question boobu moo ci ne beneen actualité bi mooy wàllu Afrique ay njiitu réew yoo xam dañu fi diggoon def mandat te ñu leen di yakan di yaakaar nañ dellu gannaaw parce que li def du démocratie vraiment euh, ñaan nañ yàlla ñu delloo si seen xel. Mm. mën a bàyyiloo te xam ne nguur kenn du ko njiit. kenn du ko njiit il faut mu jeex. dëgg la ñibbi mm-hmm. noppal sa bopp. Mm-hmm. noppal say bokk. Mm-hmm. waaw eh, dëgg la docteur euh, docteur Ousseynou bi dañuy dem ba Mali. kon euh, ko xam Ibrahima Boubacar Keïta ñu dal di ko defal coup d'état ak son gouvernement arrêté moom ak premier ministre bi. ki nga xamante dañ ko élu démocratiquement noo ko gisee. waaw xam nga peuple moo la élire.

dañu reconnaître déclaration des droits de l'homme de du citoyen 1789 te euh, déclaration boobu dafa mhm. dafa am le droit de résistance à l'oppression. Mhm. maanaam même ko fal bu fekk qu'il mi ngi lay teg choono bo xamni ne supporter am nga droit fippu fippu nañu wacc na. Mhm. mais li ci am importance ci man la ci africain waro jàngat moy ki lijjanti lolu yëpp moy imam diko bugul pouvoir goro ngi de. liggéey na tek na ci bakkanam def na lu ne. poste mo ne soxlawul na Mali bax rek. dañ am loolu Sénégal. léegi est ce que fi nga ne lii maamu dikku googu def noonu euh, taxu tey Mali yàqu crise politique bu ñu ko yóbbu mooy xeexlu na waaye gisuñ benn solution bu meilleure pour le moment. waaw CEDEAO waa yi wax nañu wut benn xam nga moom benn objectif la amoon mais kii fi ne. Mm. te bëggatuñ ko na wàcc. pare na man ndax dañ am bu gën boobu kuy defaraat. Mm-hmm. ñooñu ñeneen ñooy defaraat parce que moom du du du homme d'état du kile du loolu du mission am jàpp jàpp na ne kii nu muy doxalee Mali parce que Mali dem na ba c'était le chaos. Mhm. contrôle dara. Mhm. noor lu ëpp ci Mali sax di jaadis ñoo ko ñoo ko yor. dëgg kon kii géré wul dara. Mhm. kon na fi jóge léegi pour defaraat Mali kooku xëy na du mission moom mission ñeneen la. dëgg la waaye lu waaj a waxoon diggante.

fal démocratiquement. Hmm. loolu leer te moom fal nañ ko. waaye nag bu dee moo fi moo fi sës. parce que moom que parce que dem na ba Mali yàqu na. léegi lu ñu wax da ngay entre deux mots on choisit le moindre. Hmm. boo ko fa bàyyoon dee gën a yàqu. xëy na mu jógee fa moo tane mais ba tey coup d'état moom du yoon. yoon nangu ko. mais dañu gis ne peuple bi ci ñeen ni ci militaire coup d'état bi. ba gis ne peuple bi dafa ànd ak ñoom parce que imam euh, Mamour Dicko boobu mobilisé. waaw mobilisation bu historique. la Mali defoon ci jamono xam nga lu question bi léegi. Mhm. lan moo war a jiitu bëgg-bëgg population wala yoon. man bu dee juriste da day yoon moo war a jiitu. Mhm. mais yoon boobu ñu koy defar ma assemblée ku leen fal du population bi. population bu leen ne ñun ñoo leen fal pour ngeen defar yow léegi pousse leen ñun ñoo wax ñooy wax suñu bëgg-bëgg. il faut ñu déglu leen. kon donte coup d'état baaxul. lii mën nañu ko comprendre parce que bu ñu ko bàyyiwoon kenn xamul Mali fan la Mali fan la jëm. te moom dafa dëgër bopp. mu tul dara. xam na ne réew mi doxul doxul. bu leen nee bàyyi nga bàyyi. d'accord nga démissionné dem. Légui ñu koy jël diko ko diko di ko pamti pamti loolu lu ko fa jar. mais est-ce que amna ñu gën lolu Ibaka jamono ji toll ni? CEDEAO am li di jiwloon transition bi mais est-ce que Mali am nañ ku gën Ibeka pour le moment ni? ba pour le moment xëy non non bu ñu démé ba élection. dina am ku gën Ibeka comme Sénégal ñu ko gën Macky Sall du ku ñu fal ak yaa fi gën dé. Ah yàlla la fi teg bon gérel mais ñi la ëpp pass pas ñi ngi fi ñi la ëpp am xam ñi ngi fi ñi la ëpp diine ngi fi mhm kon euh, nañ japp ne nag transition bi dina metti dina am jaxasoo waaye nañu fexe ba gaaw dem ci élection mhm. malien fal ko xamné mom lañu la do don ku bax ku am pass pass ku am diiné ku mën a diriger réew ñu bàyyi ko mu liggéey. docteur Ousmane Ludovic Alla Soutien mom lañu am ak nekk fi ci plateau bi Sam TV gaynde l'actualité l' wax né candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat lan ban ci gis nga am ci lolu yàq fayda rek. waaw taxaw ci population né man bayina di way falu nga dem ba yàgg na ñëwaat naa waaye loolu dafa rafetul.

Bah, le 5 mars 2020 Alassane Ouattara euh, euh, candidat 31 août 2020 élection présidentielle Emmanuel Macron a félicité décision historique Il nous fait un ci la pandémie. mu dal di fait euh, un non xam nga veux jaaxal ivoirien parce que wax sa wax te kenn forcé wu la ñëpp dégg la nga tourné changé wax bi war nga mais am na mbooloo naka lay doomu aadama taxaw di ànd ak koo xam ne day wax lii tey bu soir mu def le loolu tamit doy na même bu àndeex moom sax bëgg mu falu da nga non comme wax nga ba pare gor day gore bàyyi même ko andax mom lolou ko war wax d'accord comme xass nga wax ba paré ba ñepp japp wax ji pour delu ci wax leneen mais dans tout cela c'est benn dafa na pat bu ñu waxee coup d'état ci Mali coup d'état bi euh, CEDEAO réagir na lañ defee transition le plus rapidement possible. mais gisoo kenn bu ñu wax candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat ñoom CEDEAO yëngatuñu. waxuñu dara waaw lu waral loolu. dara parce que ñoom ñu bëri ci ñoom noonu ñu bëgg a hmm. de mais ñu bëri ci ñoom noonu la ñu a ba pare. xëy na ñu ko déranger parce que xam nga boo nee na dem non aw dakkuñu doon na dem. Hmm. fax mu toogaat hmm. da ngay am problème. parce que boo fi nekk 4 5 ans nga war a jëflante ak moom am chef am chef d'état hmm. da ngay day fàttali ne kii waxoon na ma naa génn na na naa xam na loolu loolu la ñu ragal. parce que ba ko contrer. ñu falaat ko Côte d'Ivoire mu toog nga toog. waaw loolu xam da lay <laughs> indi problème. day day mais ñu war ñu xool nañu xool rek yoon. conscient bi nee na boo defee deux mandats peut être dootoo waxu conscient. Mm-hmm. xel mënut a jàpp nit tey ci démocratie ci àdduna def man mandats. parce que loolu day mel ni yow yaa gën ci nit ñi c'est pas possible. d'accord benn mandat boo ko defee lu rëy la parce que gënoo fa. gënoo fa nit ñi pap gënoo fa nit yaay. Mm-hmm. ñu falaat la. Mm-hmm. waa doyul.

Covid bi ne fi ba tey nag dañ ko falaat benn mandat encore fekk Covid yeexul kenn kenn dañ koy faral rek waaye loolu waxu picc la waaye mais am nga liggéey Covid da nga fi xëy la loolu du loolu rek doy na liggéey bu fekkee liggéey nga bëgg kay xeexal Covid ñu xam ne yow xeexan nga. mais loolu yëpp ay lay la rek ñoom daal te gis nga lii moo tax tubaab yi lu ñu mënte wax. Hmm. duñu respecté duñu mos a respecté nit ku ñuul parce que façon yii ñoo tax

si Emmanuel Macron lui mu def si Alassane Ouattara dafa mel ni moo ko may pouvoir mooy que doole wan ko applaudir ko daal mel ni France waaw accordé que Alassane Ouattara def son troisième mandat même bu ko waxul carrément sax xam naa la mhm. mais France moom intérêt les calculer la wax ji la France les états n'ont pas d'amis ils ont des intérêts mhm. mais Macron bu fekkee ne Ouattara toog moo ko gënal <laughs> mais moo gënal France mhm. parce que moom xam nga loolu loolu différence bi Macron xoolu intérêt boppam de intérêt France lay xool kii toog fii dina yombalé na affaire pour mën pour France mën avancer mom moom loolu lay xol mm. mais watara xooloo intérêt Côte d'Ivoire mi xooloo intérêt boppam naa faluwaat rek toog. naa faluwaat toog c' ça la différence. d'accord accord est ce que foog nga ne sax euh, Côte d'Ivoire wala Mali. Mm. wala ñi ñew ci Guinée ci Alpha Condé. Mm-hmm. ñu mën dox sans sans France mën nek dina jafé parce que dañ ko tam looy seigne Touba xeexoon tubaab bi Ablaye Wade eggali ko ak ñeneen ak ñeneen ki fi ne yak na yépp

mais ñun bëgg nañ demal suñu bopp sans France loolu la ñu war a wax français yi. Mhm. parce que tubaab ëpp ñu xel. nañu liggéey ba dab leen bu fekkee développement la pourquoi ñu lay sujjootul ñu ñuy woo Charlie Hebdo ñu dem foofu taxaw di buuxante pour feeñ te ñu fay saako yonent bi alors.

man naa ngay def parce que ñoom lu ñuy def nii lu ñuy wax nii buñ ko waxoon avant ñuy falu kenn leen fal mooy kaa Macky Sall ci ñëw. li muy wax nii. Mm. bu ko waxoon avant muy falu. Mm. du falu soo xoon su ma toogee damay def trois mandats wala su ma waxee su ngeen laajee damay neen wii du ma neen nii du ma ne bu ko waxoon kenn du ko fal lii dangay da gore li nga wax ba tax ñu fal la ci doxal ko soo paree nga dem loolu moo waxoon ni deux mandats lay def. moo tax génnee na ah kii di guerrier la ci vraiment doo def deux mandat dem yoonam ñoo xam ne démocratie am na nga dem dugg ci biir expliqué da nga def troisième mandat respecté nit ñi. mais dans tout cela lan moo duñ ko nangu opposition bi boobu xanaa nangu ñu maanaam mu nekk candidat ñi dem ci élection yi ñu woote seen wane seen naqar mais da nga peuple di doote seen manifestation lan moo waral loolu. mais il faut ñu manifester parce que problème bi sax nekkatul mu falu. mais warul sax présenté. warul sax présenté ndax loolu la loi bi wax té mom moko ko buñ ko bàyyi mu dem loolu moy kon loi amatul ben valeur. d'accord té loi moy teunk président lu koy falé koy wax du loi lu koy folee koy wax du loi. Hmm. damay doxalé koy wax du loi. Hmm. wa léegi buñu bëggé jël wax sànni ko fay jiital président kon dëkk ba yàqu na. mais ci référendum lay dal di jël ay projet bi dugal ko mais peuple ñokay koy voté. waaw ñokay ñoo voté da ko wii. waaw waaw mais xam nga peuple bi aussi ñu bari Afrique. Euh, du mën a yeewuñu mais am na ci ñu am problème yu bari te pauvreté baa ngi ci. Mm. am na yoo xam ne dañuy toll pale yónnee leen war yi wala yónnee leen kii ñu nangu. Mm. parce que dañu di jox loo xam ne mosuñ ko yaakaar ci àdduna te politiciens yu bëri affaire noonu noonu la ñuy joué. ñun ñuy joué gis koo xam ni amul nga jox ko pour wañ xelam pour mu ànd ak yow loolu nag peuple yi ñoo ko parce que moo tax gars yi di éducation sawaruñ ci. dikk na sawaruñu nit ñi yeewu parce que nit ñi bu ñu yeewoo doo leen mën a yeb ci kaar jëlee leen euh, euh, euh, ci banlieue yóbbu leen kii dugg ku nangu lool ku yeewu. ndeysaan xana ku xif ban conseil ngay jox ban ngay conseil ngay jox. IBEC manam Mali. ban conseil futur président de la République du Mali. ban conseil nga ko jox ak ak Alpha Condé. Mm-hmm. ak Alassane Ouattara. waaw ñi nga xamanteni ni tey dañ bëgg mën nañu wax ne sama Mali troisième mandat la bëggoon dem je ne sais pas on sait on sait mm-hmm. voilà ban conseil nga mën a jox foofu ci plan international. waaw ñoom ñëpp ñoom ñëpp. Mm-hmm. nañu bàyyi. ñoom ñëpp ñu bàyyi. nañu bàyyi def nga deux mandats. gënoo fi maliens yi gënoo fi guinéens yi ëpploo fi xel ëppoo fi pas-pas bàyyil deux mandats bëri na. njiitu réew xanaa une semaine sax doy na une semaine boo xam ne loolu neex def loolu neex mooy am ku ne sakkal ci ko ko kaso comme Sénégal mais loolu vraiment bu la ko yàlla may da nit day suur gis nga boo amee sa alal bopp jënd sa boolu ceeb teg ko sa biir néeg tëju mm. yow kenn yaa fa ne mm. war nga fekk sax ba bool bi bu mu jeex donte sa alal bopp la. donte sa alal rawatina nag. luñ la dénk. nga bëgg ko jeexal tàgg ba pare ngir ñaanaat. ay nit déggoo de waay. nit dé wala François Hollande. benn mandat la def de. mënoon mm-hmm. na briguer deuxième mandat ne ba naa naa dem rek lu ma am jël. Mm-hmm. mais dafa xool situation bi ne ah français daal weddi nañ ma. Mm-hmm. mu baax. léegi mi ngi nii di circuler ak mobilitam biir France. dara.

li wax né plan national d'organisation des secours muy ORSEC Macky Sall mettre na en place. dëkk mm-hmm. Demba Ndiaye Demba Ndiaye da def conseil des ministres nan nga gisee plan ORSEC. du dem fenn dañuy nax nit ñi rek xam nga loolu. yaa dem fenn plan ORSEC commission d'enquête pour reyu Fallou Dieng looy looy Fallou Fallou euh, Fallou sen loolu yëpp ay ci la rek lii ñu wax plan ORSEC moy lan moy urgence mais war nañ dépassé urgence parce que amoon nañu plan décennal 2012 ba légui mm-hmm. waaw lolu fa nañ ci toll du ma ne defuñu dara de. Mhm. mais nga toll ba tey à deux ans du plan fin fin plan euh, euh décennal nga plan Orsec am na problème ba pare est-ce que dina am transparence est-ce que dañu xam lañ ci wax ci alal. Mhm. fan la jaar. Mhm. kan moko ko jël. kan la ko jox est-ce que dina leer. parce que commencé nañ ko jaarale ci yoo ci ci yoon yoo xam day nakandi di contrôler saako ceeb mbuusu macaroni est-ce que loolu mooy problème bi dëgg la ñu fa né ñu nekk ci mën mi am nañ problème mhm. mais seen problème principalement ñu fexé ba jëlé fa ndox ñu duggaat seen kër mais nga fa joxé saaku ceeb et cetera bon du ma ne dé waye waaye loolu mooy priorité. xoolee décret bi depuis le 17 novembre 1993 la ñu ko mettre en place fii nga xamante moy Sénégal mhm. waye lu waral depuis 93 ba léegi ñu matukaay pour Sénégal bàyyi inondé parce que bo xolé ci région yu mel Sokone Kaolack Ziguinchor Joal Palmarin Thiès Saint-Louis et Kër Massar ñom ñëpp. nekk ni ñu xamante ni tey ci région de Dakar bi dañ dal di dañ dal di inondé. xam nga euh, wax dëgg aussi dafa baax bu fekkee da nga bëgg falu rek wala faluwaat nga taxaw naa rek régler problème bi plan Orsec et cetera. Mhm. boo demee ba lajj day feeñ. day feeñ waxoon nañu dëgg. oui xam nga li am nii population am nañu part am nañu dem dëkk ci paasu ndox nañu waxante dëgg. waaw état aussi waru leen bàyyi ñu dëkk foofu. ba ñoo fi dëkk. Mhm. am ñoo xam ne amuñu benn këyit dëkk ci place ndox ndox bi dellu si day dugg sa kër. Mhm. bon est ce que état mën na régler loolu yëpp naka la koy régler na wax nañu dëgg wala bu demee commencé plan décennal ba dem ci digg bi mu ne ah attention waxoon nañ dix ans de. Hmm. waaw lu gis nii de am na jafe-jafe. Hmm. léegi nañ plan bi yokk nañ ko wala def nii wala def nañ mais nga noppi noppi noppi ba kii nga naan jox jox leen ma rapport kon boobu léegi jotoo rapport. plan wu 700 milliards boobu yaa ngi doog yaa ngi doog laaj rapport. kon hmm. jotoo rapport benn rapport boobu tey. Ah, problème la. ndeysaan ah, vraiment loolu lañ ko war a seetaan. loolu lañ ko war ah. donc gis nga ne rapport hors sec bi daal ay waxu wax yoo xamante ni euh, bu ko Sénégal yi xaaral. taf yëngal la rek bu hmm. ñëw na ci euh, Covid bi tey li mel ni location ou locataire la ko a waxee euh, gis nañ ñi nga xam ne am nañ 6 mois cinq mois fayul am problème ak seen waa kër nan lay man gis nga ci locataire ak location. waa loolu moom lay jafee réglé parce que état waratu dugal loxoom mais ni locataire bi amee jafe-jafe pour fay. noonu la noonu la noonu la béykat bi amee jafe-jafe moom tam pour dund. boo nee locataire bi bu fay parce que Covid la waa ki yor këram nag moom defar këram def ci brique def ci ciment def ci maçon war a fayeeku te loolu lay dundee suñ ko fayee lu muy dundee day xaw a jafe. day mais dañ jàpp ne xëy na kuy yor këram euh, logiquement moo war a tane tuuti kuy loué parce que kii am na alal. Mm-hmm. am na am na kër. bon mais kon nañu trouver arrangement mais li li bon mooy ñu taxaw ne bon bu kenn fay extra loolu c'est pas ça nañu waxtaan. wo ay locataire wo euh, ñu yor seen discuter ba tomber d'accord ci avons dina locataire xëy na ñu jox leen délai xëy na ñu wàññi ko ci diggante bi je ne sais pas mais daal ut solution boo xam ne. Mm-hmm. du solution politique. parce que locataires yi ëpp pour lu la neex rek nga ne bu leen fay parce que lii loolu loolu loolu du am lu yenul maanaam. parce mm-hmm. lan la mm-hmm. euh, ñëpp. am na jafe si a jaarale foofu ñu négocier ñoom parce que affaire yi métti trop. waaw. metti na est-ce que saxul woon subvention parce que génne na mille milliards. oui ah, waaw xay war nañ ci jox xëy na xëy na bailleur ne leen am leen ngeen mën a muuñal locataire tuuti. Mm. parce que kuy luwee aussi nga bëgg ko génne famille am loolu aussi dafa doy waar. Mm, dafa doy waar de. wala ak famille am mm. tu nga bëgg génne. parce que fayul ci Covid liggéeyul. Mm-hmm. loolu xaw a xaw a doy waar. da doy waar waaw il faut ñu ut solution. dañuy dugg éducation bi tey euh, ki nga xam ni mooy docteur Ludovic Allain Soutin mm-hmm. constitutionnaliste mu joxe xalaatam ci li bac bi dal dinañ ko organiser. Mhm. avant loolu bac bi am en 36e gis nañ ay erreur de épreuve amna ay erreur de waar noo ko gisee en tant que ministre de l' nationale mom du taala. waaw man de yakana naa ne Covid 19 bi bu dee am luñ ci xaw réussir donte amna jafé jafe-jafe éducation parce que fexé nañu ba. année blanche amul pareeguñu nag parce que ñi ñi amul nekkul classe rek dem mm. dañ nangu loolu beneen problème la mm. mais gouvernement da def na kéem tolluwaay kattan ba année blanche amul danañ examen ci biir ndox <clears throat> en tant sixième xale yaa ngi ci biir ndox bi ndox bi yéeg ba ci taal bi ñuy def rek maître yi def élèves di def vraiment góor góorgóorlu nañu ba xaw a sauver année bi mm-hmm. loolu vraiment euh, lu ñu rafetlu na mais aussi euh, contexte bi day tax ba année bi est-ce que dina baax à 100 pour cent dina am jafe-jafe de. dina am jafe-jafe xëy na nag dina yàqu tuuti waaye moo tax ne année blanche.

ni xel mën na parce que euh, réussite bi euh, xawna bari par rapport ak yeneen année yi. mënu ma wax ne triche amna na mënu ma wax ne dañ leen complaisance mais dal lu constaté. ma ñi jall ci cette ci bari na par par rapport yeneen année yi bon mais lolu yëpp nañ ko tek ci. jafé jafé yu année bi. Mhm. Euh, pour mën ko sauver. mën ko sauver waaw. comme nit yi temps bu ñu jang mhm. doyul. dëgg la baccalauréat l'orientation bi am na rëkk-rëkk et cetera mais loolu na moo tane année blanche. moo moo tane année blanche. moo tane année blanche. ndeysaan ne année bi dafa manqué moo tax ñoom su loolu manqué ak jafe-jafe euh, pandémie moo tax daal gars daal di. organiser ba ñu ko

lan lan la war a def topp lan la a def kenn wootewul violence wootewuñu euh, lu yàq réew mi. waaw mais peuple day jóg. jóg ci façon bu ne bu ñu woowee marche nga dem bu ñu nee brassard rouge nga takk bu ñu nee waxal nga wax mais lu ne xew na fi waxuñu dara dañuy continuer. man su ma nekkoon Macky Sall loolu lay def. mais lu ne xew na ay mouvement ay marche ci mouvement ñu ci mel ni ay Guy Marius Sagna. waaw mais li jëm ci dara. parce que ñoom dañu wéet taxul tey Macky Sall bàyyi Khalifa ba Macky Sall bàyyi ñëpp. président Macky Sall mës te dellu gannaaw ci dara. Abdoulaye Wade sax da nga ko doon wax dafa dugg ci mbir. Mhm. sëriñam woo ko ne ko bàyyil mu bàyyi. te kat moo mag sëriñ bi de moo ko mag. mu ne ko bàyyil mu bàyyi mais président Macky Sall mës te dellu gannaaw ci dara. dara d'accord.

comprendre ne man sama un an bi pandémie bi jël na ko corona bi sama mais ñëpp am pandémie ci àdduna pandémie du Macky Sall ñëpp la laal laal la élection euh, laal la Macky Sall ñi ki war a falu laal ñi def ñi dem vote ji bon ça veut dire que perte na un an Macky Sall pertul un an hmm. dama dégg dama ne la feebar bi liggéey la dañ la fal pour nga liggéey feebar bi xeex ba feebar bi dañ fi liggéey la kon liggéeyal hmm. léegi dese na ko quatre ans te ñaanul yàlla Covid bi dem fii ba quatre ans. Mhm. am am nga temps. Mhm. xanaa xam nga président même bu dee benn mandat sax mën nga ci mën nga ci def dara parce que mënoo régler lépp da ngay teg dëkk bi ci yoon keneen ñëw eggali da ngay teg autoroute ba jam Diamniadio yow Ablaye Wade ki ñu eggali ko ba Touba. Mhm. keneen ñëw eggali ko ba ba ba Tambacounda. mais mënoo def lépp parce que mënoo fi nit ñi. mënoo fi nit ñi il faut parce xam nga.

mu wax ba pare ne leen def deux mandats euh, trois mandats deux mandats lay def mu laaj leen waa léegi leer na ñu ne ko waaw mu ne ah doo ko dem nga dellu si ñu laaj nga ne du ma ne oui du non mais di nga sa kaddu. ba si gouvernement bi. Mhm. képp ku ne Macky warul def trois mandats nga dàq ko. ku ne na def trois nga bàyyi am na problème. Euh, bi ci ci ci contexte boobu. Mhm. Macky Sall mënul pousse mbiri parce que 2024 la ñu waxoon. Mhm. bi mu wax 2024 boobu xamuñu woon jàngoro yu mel ni coronavirus. est-ce que une logique na ñi pousse comme nous mel ni Jeux olympiques 2022 en Japon, pour 2026 le ministre des sports Matarba, Ba y a contesté bi ndax pandémie bi mhm. muntu may Macky Sall dëgg pour pousse 2024 pour présenter troisième mandat au Sénégal dama lancé euh, terre bi dama lancer ay projet pare guñ nangam nangam yooyu mënu nekk nga fa non xam nga lu xel mën a Moi, covid 19 indi na ay jafe-jafe organiser élection 2024 ça va être ce Covid bi tax élection locale locale ko il faut ñu Il def def mm. Mm. élection présidentielle six mois un mois d'accord mais ça mais xel ne na pas. Mm. mais pour troisième mandat comme que troisième mandat. non ko troisième mandat deuxième mandat <laughs> constitutionnellement parce que référendum

xam nga débat bi mën na nekk ah. li nga li wax ne mën na nekk. deux mandats consécutifs waroo ko def moom mu jàpp ne kon waxtu bu ñuy wax loolu moom président la kon loolu intéressé wu ko day commencé kon bii mooy premier mandat ci constitution bu bees bi. comme mun na def kon deuxième mandat et non pas troisième mandat bon mais comme am na débat ñu laaj yéen ñii bindoon texte bi lan ngeen ci jublu woon ku bind texte bi Macky Sall lan la waxoon. Mm. deux mandats leer na moom moo ne damay yokk li nul ne peut faire xam lo nekkoon constitution bi nul ne peut faire plus de mandat consécutif dam ko ci yokk pour ken do te fi taxaw ni la jëti troisième mandat comme Ablaye Wade moko waxone devant tout le monde kon loolu mo do intention mm. kon bu ne texte bi leerul d'accord accord léegi dañuy ñëw ci euh, docteur Souleymane Doudou Alassouté mooy nekk suñu gan fi nga xamante moy mooy Sam TV gaynde de l' lan ñaat ci mort ñu xayma bu Macky la waxee ne dinaa def troisième mandat <laughs> ñaata ci moor nga xayma parce que Alassane Ouattara moom am na ay moor. Guinée am na ay moor. ñaati ci moor nga xayma ci Macky Sall su waxee ne danaa def troisième mandat. waaw moor moom vraiment kenn ko yàlla euh, wàcce nañu président te bu koy wàccee ca bés ba en xam nga Sénégal yi tax ñu noppi nii xëy na explication bi mooy dañ ne kii. bàyyi na ko brandé troisième mandat duñ jaral ñu xeex duñ jaay suñu bakkan na présenté rek présenté ñu voté contre mu am 5 ou 10 pour cent. nga ko loolu. gàcce bobu rek doy na réponse waaye nak attention effectivement. oui Sénégalais yi kenn mënu leen situé ciow nañ fi bokk Khalifa Sall xex ba sonn buntu ko Khalifa Sall Macky Sall fa gagné. voix yi ma am nii dëgg la am na ay ñu ñàcc ay ay jaxase carte geeg joxe euh, déplacé électeur jaxase parrainage loolu yëpp dëgg la mais man gëm naa ni moo gagné li ngay wax kay ma est na 58 pour cent waaye moo raw gaa yi de. moo raw gaa yi moo raw gaa yi loolu leer na. moom moom la ñu votel te pourtant loolu ne dégg ko fi demoon nga Dakar pour nit ne sax man Macky Sall am na sax ñemewoo ko mais moo gagné. mais coalition ben bokk yakar boobu kenn ku nek ci ñom lu melni parti socialiste amité Mbengue Ndiaye lañ fa gis Serigne Mbaye Thiam Aliou Aliou Ndoye hmm. euh, dégg ki nga xamante ni Bamba Fall des fois mu ne man mais amuñ candidat kenn ci ñoom am candidat te ay 4 ans trois ans bientôt 2024 mille vingt est ce que jàppoo ne am na seen candidat potentiel muy Macky Sall lo xam nga so bëggee comprendre politique Sénégal da nga def sa xel ni 99% vingt dix neuf pour cent seen bopp la ñuy lijjanti faluwuñu pour Sénégal ku Fallou falu defar say mbokk sa chauffeur goro di tabax étage chauffeur goro laa la wax di tabax étage waaw ñoom dañu dañuy liggéey Sénégal la ñuy non kon ñi nek parti socialiste ak sen carte carte bi yëpp da ngay xal ni ñi luñu bëgg moy Fallou placé wu noppi. parce que bo démé bo démé bo démé élection mën nañ la gagner mën nañ la toroxal bo bo continué Macky Sall mën na la gagner ñu sànni la fé loolu yépp risque la. ndeysaan comme ña tok dal di lek waaye ku lekk du tala wax. mais da ngay wax dëggal na ki nga xamante ne mooy maître de l' avocat El Hadj Diouf l' avocat du peuple. Mhm. génn na nee na moom Macky Sall mosu ko defal dara. donc daal moom génn bu ko wax ci benn rajo ko wax. waaw non na quand ay góor mais xoolal PDS am na ñu fi xam ne ay xale yu tuuti la Macky Sall euh, président Abdoulaye Wade jox taranga loo xam ne mosuñu gis ci àdduna. Mm. ministre à cinq ans. Mm. ana ñu tey dem nañ ci Macky gëmuñu dara gëmuñu dara Sam TV gaynde l'actualité euh, tay euh, dañu gis né euh euh ñaari mbir mu am tay ci réewum Sénégal mooy ci parrainage bi amoon ñu validé woon seen parrainage bi nek candidat à la candidature pour président nek président la présidentielle élection présidentielle yi gisoon ci ku mel Ousmane Sonko gis nañ ki nga xamante dañ ko rëkkale woon ci kan ci parrainage bi ku melni ni Bougane Gueye Dany hmm. mais ñom ñaar dañ mel ni dañuy am ay affaire dal lu pour opposition bi au lieu ñu jéem wax ak Macky Sall bi wax seen biir ñom mais gis nga élection législative yi passé ah féolo qui opposition. moi t'as gagné l'Assemblée nationale. Mm-hmm. est-ce qu'on est au pouvoir opposition. au mm-hmm. pouvoir nous sommes 51 la majorité. Quand nous bu ñu siège tey jii Macky Sall est am minorité assemblée nationale. élection présidentielle Macky Sall est falu féewaloo ak Tanor avons nous de pour ñu mais ñu ngi pas ba ñu la Macky Sall bu ñu nangu loolu Sonko am na discours musclé Bougane am na euh, euh, capacité dem ci nit ñi def ci alalam def ci alal boppam parce que ñàkkam la mu def ko nit ñi jox leen moto pompe jox leen di jox leen lee mm. dugg ci ni extra mm. mais loolu kon nañu war a am complémentarité nañu ànd PDS xëy na temps yënguñu lu bari am nañ baas fu ne Sénégal boo fa demee am na am na cellule PDS kon ñoom ñii ñoo war a booloo daaneel Macky Sall bu fekkee ne loolu mooy seen objectif. Mm. pour ñu paree nañu xool kan mooy jiite ci ñoom mais Macky Sall noonu la faloo dafa woo PS woo AFP ñu ànd ak moom. Mm. ñu dem léegi euh, euh, Ablaye Wade dem deuxième tour.

te ñoom ñëpp moo ëpp xel Idrissa Seck mii boo waxee nga xam ni kii am na xam-xam mais boobu léegi waxul dara kon ban façon opposant la ñu gagné la nga ne waaye gagné nañ ma waaye du ma porter plainte xanaa dañu yeb ñun ñi la votel bu ñu sàccee doo dem xeexi pour pour pour ñun ñi la fal pour ñun ñi la votel mu ne donc ñoom dañu bëgg parce que man dama xamul lu tax mais gis nga pouvoir bi dañoo ñeme Idrissa Seck xamul lu tax te Sonko bii doog ñëw sax moo leen gën a jaaxal ki Idrissa Seck xaw ma nag fu ñu jaarax moom ak lu ñu yaakaar ñëpp ñu ngi naan sax parce que xamuñu ñaan dañ ko dañ ko dañ ko jaarale mystiquement et cetera c'est pour te dire que xamuñu lu tax parce que gis nga élection deuxième tour yi ñoo bëri dañ dem jàppale Idriss Seck taxul APR jaaxle ba tey kon ñoom dañu da leer ni élection bu mari Karim Wade bokkul Khalifa Sall bokkul kenn du gañe ku dul Macky kon bu fa kenn wax waxi Idrissa Seck Sonko dina yëngal tuuti rek mais ku bees la du amul base du dem fenn. dëgg la voilà motax ba tey jii nii. Mhm. Idrissa Seck jaaxalu leen. kon kooku doon chef de l'opposition mo leen gënal. mo tax ñu naan moo jël deuxième chef de l'opposition PDS ne non ñun ñu ngi opposé wu té parce que am nañ groupe parlementaire. ñu ngi liggé ci opposition parce que am na groupe parlementaire so euh, Idrissa amul groupe parlementaire. Mhm. wa kon loolu moy xeexoo bi mais non loolu amul sens. Mhm. ñom ñëpp bu fekké né seen objectif moy na Macky Sall wàcc.

merci beaucoup.